أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala di jël tey ñaari aaya aaya 172 173 ñaari aaya yi nekk sunu kanam sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu diñ ci jàngal ñaari mbir bi ci njëkk mooy xurmatul istinkaaf an il xaq wa istikbaar an qubulihi mbokki jullit yi ñaari jikkoo ngi nii yoo xam ne sunu boroom ŋàññ na ko ba pare terenu araamal ci nun ñaari jikko yooyu nekk ci ñun bi ci njëkk mooy araam na mooy araam na doomu aadama ab jullit rëy ci nangu dëgg al istinkaaf mooy rafd mooy bañ lànk ñu ne la dëgg ngi nii mu leer la ne li dëgg la amul sikki sàkka yaa ngi di ci teg sa bët leer na naññ nga lànk daal di koy gëmm ne gisuma dëgg gi beneen bi mooy wastikbaar an qabulihi nga rëy encore pour nangu ko ñaari mbir la yu bokkul dañ laa woon dëgg gi nga bañ lànk bañ koo gis rëy pour def ko waaye bi ci gën a garaaw mooy nga lànk ne duma ko nangu yenn saa yi sax nga gis ko xam ne danaan waa lii de xam naa dëgg la nag waaye dëgg la waaye waaye nag kii moom waxuma la mu ne dëgg la waaye waaye moom daf ko lànk ba pare sànni ko fële loolu tey boo doon xool lenn ci ay jullit ci biir dëkk beeg réew mi di nga gis ay doomu aadama yoo xam ne lànk nañu nangu dëgg waaye lànk nañu jëfe dëgg li koy waral nag léeg-léeg ay daraja la yu nit ki am ay ndombo tànk ah alal xam-xam yàgg ci mbir léeg-léeg nga gis bàyyi joo xam ne dafa yàgg ci mbir def ci nangami at doomam ñëw ne ko papa lii mu rëy ne ko kaña nga fi judd kaña nga fi jàng kaña nga fi màgg waaw li may wax ñetti kaña yooyu ñoo ñu sonal kaña nga fi judd kañ nga fi jàng kaña nga fi màgg daal di lànk nangu dëgg gi ak rëy rëylu sunu boroom def nuy won tey ci aay yi nekk sunu kanam doomu aadama lu mu am daraja lu mu am ay ndomba tànk lu mu am xam-xam lu mu màgg lu mu rëy nu mu mën a toll war naa mën a nangu dëggu yàlla warul rëy pour jëfe dëggu yàlla sunu borom subhanahu wa taala sunu borom daf ñoo jox tey ñaari misaal ñaari modèle yoo xam ne buñ ci xoolee danañ xam ne ab jullit wërta rëy waaw ci mbirum yàlla wërta rëy ci jëfe santaane yàlla warta bañ nangu dëgg buñ ko nee lii dëgg la war ko bañ yàlla joxe isa yàlla joxe malaaka yi isa mbokk yi am na daraja wala amul daraja am na daraja wala amul daraja daraja bu rëy la am ndax bokk na ci ulul azmi min ar-rusul waaye da ngay dégg ñu ne ruux ruuhun min allah ni Muusa amee daraja nekk kalim Ibrahima nekk xaliil Isa noonu la amee martaba bu rëy ci sunu boroom subhanahu wa taala ndax kat moom ruuxul min allah ruux la bu bàyyeekoo ci yàlla waaye xool leen dafa juddu amul wéy jur bu góor amul bàyyi yaay kese la am yàlla joxe ci moom misaal pour nit ñi mën a yéemu pour nit ñi war a xam ne yàlla mooy yàlla jalla jalaaluhu waaye xoolal ndomba tànk yooyu yëpp yàlla di ko takkal ak daraji ji mu am ba Isaa sax nga xam ne day wàccaat kaw asamaan ëllëg day ñëwaat ci kaw suuf si darawul loolu yëpp moom Isaa rëyul pour nekk jaamu yàlla rëyul waaye xoolal malaaka yi am nañ daraja wala amuñu daraja ah kay wallahi malaaka yi am nañ daraja ci yàlla terewul daraja jooju li ñuy màgg-màgg rëyuñu pour nekk ay jaam ci yàlla ñoom ay mbindeef lañ yoo xam ne yàlla da leen a bind ci leer du ñu lekk du ñu naan du ñu ay góor du ñu ay jigéen xamuñu bàkkaar ñoom duñu mooy yàlla dañuy jaamu yàlla rek xoolal daraja jooju yàlla defal leen yépp terewul rëyuñu ngand ngandluwuñu wanewuñu dara lan lañu def mooy nekk ay jaam ci yàlla jalla jalaaluhu sunu boroom nekk ay jaam barakallahu fik jazakallahu xayran kon loolu mbokk yi misaal la bu yàlla di woon jaamam yi pour ñu damm yenn yi jikko yi génne ko ci seeni jëmm génne ko ci seeni jikko da nga gis koo xam ne li tax mu bañ lii rek mooy rëy ak bañ a nangu dëgg rëy ngand ngandulu tey loolu nag lu yàq jikko doomu aadama yi loolu ci la bokk rëy iblis loolu moo ko alagoon aba wastakbara bañ na daal di rëy ci kanamu yàlla subhanahu wa taala danañ yàlla musal ci ñaari jikko yooyu ñaareelu jikko bi li ñuy jëlee ci dars bi mooy bayaan aljaza al uxrawi wa huwa imma naim wa imma jahim yàlla ngi wax ci aaya yi ñu jàng di ñu leeralal ëllëg lu muy fay ku nekk ci kaw suuf jullit nga wala yéeféer nga ñaar rek moo lay xaar yàlla fay la dugal la aljanna wala yàlla mbugal la dugal la safara ñaari rek moo ñu xaar ku mu mun a doon ci ñun mbokk yi toog fii bu yeboo nga xam ne ëllëg yowmal xiyaam ñaari mbir dong moo fa nekk ci sa mbir aljanna wala safara ñaar yooyu nag benn bu ci nekk yow la yow yow yow yaay góorgóorlu li gaa yi di wax kabat kabat ba aljanna wala kabat kabat ba safara laqad xalaqna linsaana fi kabat imma nga kabat kabadi ba ajana wala nga kabat kabadi ba safara góorgóorlu jaamu yàlla bu dugg ajana rek wala nga caaxaan di tooñ yàlla rek ba yàlla jàppal dugal safara ñaar yooyu rek moo fa nekk yowmal xiyaam amul beneen leneen lu ngeen di dégg nag lu dul lii ay naxaate la caaxaan la fola ku dégg riir mi ci dëkk beeg coow li ak diw moomu nangam nangam ak nangam ku ànd ak diw nangam nangam comme ni ko gars yi di waaye léeg-léeg sax nga dégg ne ku ànd ak diw loo laaj da nga ciy jot wala ku ànd ak diw lu la neex laaj wala lu la neex def loolu la yonent bi am ko woon saxaaba yi it amuñu woon loolu te pourtant saxaaba yi àndoon nañ ak koo xam ne lu leen neex waroon nañoo mën a laaj de wala ah Abubakar waroon naa mën a ñëw kër de asalaamaaleykum ñu ne waaw mu ne jox leen ma jànq ji ah yaay kan mu ne may àndandoo yonent bi wala Omar mënoon naa ñëw kër de asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam jox leen ma li fi ne yaay kan mu ne may àndandoo yonent bi ndeysaan la preuve Bilaal yónni nañ ko mu takki jabar mu yegg si di labatal benn mbokkam mu yegg si wax ak papaay ndaw si ak yaay ndaw si ñu ne waaw ñu ne xaaral ñu woo ndaw si laaj ko ñu ne ko ah kii de mooy bilaal mooy noddal yonent bi diw moo koy yónni neen daf la bëgg soxna mu ne bëgguma diw moomu kii di noddal soxna bi la yonent bi laa bëgg bëgguma kooku kii di noddal yonent bi laa bëgg lu lay wan ne ñooñu du ñun ñooñu du ñun ñooñu du ñun de tey loolu bu la kenn yónni woon tey nga dem soxna si dal man yow mi laa bëgg bëgguma waa ji kon de doo ñibbee doo jëm ci waa ji direct da war a kii traître bu bon a ngi nii kii kii moo yées ci nit dina la yàq yow mal xiyaamati pare nga yow waa jooju bu yoroon aljanna doo doo dugg mu ne ma ne ñoom duñ ñun allahu akbar parce que ñoom seen jikko yi dañoo set ñoom triché wuñu lii ñu doon dund nii dañ ko dund à la lettre waaw ñoom amul teg-teg gi dal leen yàlla jubal kon mbokki jullit yi ñaari mbir yooyu mooy tey lu ñuy jëlee ci sunu ñaari ay ñoo ngi ñaan sunu boroom jalla jalaaluhu yal na yàlla dëgëral sunu làmmiñ ba dun tarxiis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا عليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا سنبرم نه lan yastankif lan yastankifa rëy rëyluwul ngand ngandluwul bañul lankul almasih raay mu wér kooku ñu naan misi rëy rëyluwul an yakuna ba mu lànk bañ a nekk abdan lillah jaamu yàlla allahu akbar pourtant am na daraja de takk na ndomb tànk bu rëy koo xam ne nee nañ yowmal xiyaam sax balaa muy ñëw yow di nga wàccaat ci kaw suuf ah kon kooku am nga ndomb tànk koo xam ne ruuhun min allah dangaa juddu amoo bàyyi nga nekk ci ulul azmi min ar-rusul am sax ci nit ñi ñu jàdd balay wax ne doomu yàlla nga allahu akbar ah am sax ñu dem ba ne yàlla la ndax jàdd seen pas-pas bu bon terewul ne yàlla subhaanahu wa taala ne waa ji daraja ji mu am yépp ak ndombo tànk bi lan yastankifa rëyul ngand nganduluwul génnewul dënnam bañul kan yàlla mu ne almasih mooy isa an yakuna mu lànk nekk abdan lillah jaamu yàlla kon looy dégg mooy daraja ji muy am yëpp lan la nangul yàlla abd jaamam la allahu akbar jaamu yàlla la yàlla ne ak ñan mu ne walal malaikatu almuqarrabun ak malaaka yi jege yàlla jibril mikail asrafil malakal mawt malaaka yooyu nga xam ne dañoo jege yàlla hamalatul arsh yàlla nee na ñii ñëpp daraja yi ñuy takk ak li ñuy rëy li ñuy màgg rëyuñu pour nekk jaamu yàlla waaw su fekkee Isa nii la mel rëyul pour nekk jaamu yàlla malaaka yi jege yàlla ñoom Jibril nii lañ mel rëyuñu pour jaamu yàlla ndax kon am na keneen ku war a rëy ndax am na ci kaw suuf keneen ku ñu war a ngandal keneen ku ñu war a rëyal loolooy li am tey loolu mooy li am ñii ay malaaka lañ yàlla mu ne liñ may jege jege jege jege jege rëyuñu amuñu benn ndomba tànk bu ñu takk di ko wone di ngand ngandulu bu leen teree nekk jaam moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam li gaa yi ñuy fekk mu toog ñu bugg ko jay génne ko ci cadre jaam yonent dafa bañ mu ne laa tatruni kama atratil nasara ibnu maryam innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasul bu leen ma jay ñi nasaraan yi jayee isa jay bi mooy lan ne ko doomu yàlla nga waaye yonent moom mu ne bu leen ma jaay bu leen ma wax loolu man yonent jaamu yàlla laa yonent yàlla na ngeen ma ne jaamu yàlla yonent yàlla gis nga ndeke kon doomu aadama fi mu nekk ni am na ñoo xam ne ci kaw suuf kenn ñemewu leen wax ragalal yàlla am na ci ñun ñoo xam ne boo duggoon benn saal nuyu ki fa nekk ne ko ragalal yàlla wala ngay wax ak président rek ne ko président monsieur le président maa ngi lay dénk nga ragal yàlla yé gaa ñi ne kii de dafa dof xanaa kii di xanaa dafa dafa dof kii kii ku ñàkk kersa la loolu la ñuy wax kii ku réew la ki xamul nu muy waxee pourtant yonent bi moo gën ñëpp te yàlla nee na ko ragalal yàlla yaa ayuha nabi bu ngeen ko eggali ittaqillah allahu akbar yàlla xoolal nee na yonent bi yonent mu ne ah mu ne ko ragalal yàlla est ce que yonent bi ragalu yàlla mooy dum ala taqwa sax ci loolu la ñu wax nit ñi kon nit na bàyyi xel boppam ndomba tànk daraja xaalis xam-xam loo mën a am bu rëy pour nekk jaamu yàlla waaw am ñoo xam bu ñu solee yenn yére yi rek duñ julli ah duñ julli sooxe ñu ne la aw ma sijaada bu malal sama grand mbubb bi lu ngeen bëgg ma jullee ko ci suuf si pourtant ku la gën julli na ci suuf si la la yonent di wax ci suuf si defal nañ ma suuf muy jàkk fu leen julli fekk julli leen maanaam julli fu mu fekk nit warul layee ne aw ma ndox warul layee ne aw ma lu ma lal amoo ndox suuf si way lam tajidu maan fa tayammamu sa'idan tayyiba jeex na amoo loolal yàlla nee na suuf si laab na jullil kon waroo rëy du doomu aadama warta rëy léeg-léeg nga gis ku leb ay waxtu ndax mbubb mum sol waaw man sax gis naa am na ñoo xam ne yenn jàkk yi duñ ci ñu ne jàkk ji du ma ci dem parce que moo koy di setut yooyu ci limal sama yërib loolu loolu doomu aadama bu eggee ci yenn yi bu yow moo xam ne alkuna doomu aadama waroo rëy nekk jaamu yàlla yonente alayhi salaatu wasalaam place yi am daraja yi gën a rëy yàlla di ko tagg ci alxuraan ci baatub jaam la ko taggee abd la ko wax abd tabaraka allazi anzala alfurqaana ala abdihi wa annahu lamma qaama abdullah subhana allazi asra bi abdihi araayta allazi yanha abdan ma da yone innama ana abd man jaam la pourtant doomu aadama day bañ nekk jaam yàlla waaye bis day ñëw bis boobu tur boobu rek ngay am mooy bis bu ñu la tegee ci kanamu jàkk ji ñëpp ran nga tëdd ñëpp ran ci ginnaaw imaam taxaw ñu lay seede keroog jaamu yàlla rek ngay bëgg a nekk amul loolu keroog kenn du wax dara kenn du ne imaam a ngi nii tëdd xalifa général bi colonel lieutenant chef de l'état mukk xam nga lu ñuy wax jaamu yàlla bii tëdd ndeysaan allahu akbar ana ndombo tànk yi ana li nga takkoon loolu kis ki naan fa kam min malikin rufi allahu ala maat falamma ala maat yaa dañuy gis benn buur di ko takkal ay galon di ko takkal di ko takkal di ko takkal di ko takkal ba garaat yi kawe yàlla nee na ma wàcce ko su ma ko wàccee nag kenn dootu ko takkal garaat loolu mooy loolu bis boobu jaam rek ngay bëgg a nekk te imaam lu muy wax innahu abd wabnu abd wabnu ama yàlla ki tëdd fii ñu ne amu ne jaam la baayam jaam la yaayam jaam la allahu akbar kon lan yastankifa almasih an yakuna abdan lillah isa sax rëyul pour nekk jaam ci kanamu yàlla kon su fekkee isa rëyul wala almalaika almuqarrabuun ak malaaka yi nga xam ne dañoo jege yàlla xoolal loolu rek ñoo ñooñu waroon nañoo bàkku ah malaaka yooyu waroon nañoo wàcc fii ci kaw suuf di zibilé waaw di génne mbagg ñu ne waaye waaye man ma nekk ci wetu yàlla xool leen fii ñu nekk ci wetu président buñ jaaree ci tali bi sax da nga yaakaar ne président mooy mooy romba wala gars yi xool leen fii ñu nekk ci wetu ki ah xalifa yeeg yooyu ñi nekk fii rek ci wetu commissaire ñi nekk fii rek ci wetu ñi nekk fii rek ci wetu da nga gis sax benn waay boo xam ne suqu mbër la rek suqu mbër bu mbër bi di entraîné moom bu di bëri moom mooy téye caaye ji moom mu jaar nii rek gars yi song ko mu ne mu naan nii ñu naan diw lay àndal diw lay àndal muy ngand ngandul suqu mbër yi laa wax allahu akbar ñuy wane seen bopp waaw xoolal malaaka yi nga xam ne yàlla moo waxal boppam ne ñii dañ maa jage te terewul réyuñu de ñoom de réyuñ allahu akbar yonente alayhi salatu wasalaam bi mu demee leelatul isra wal miraaj dafa gis mikail yonente ne jibril kii kan la ne kii mooy mikail mu ne ko maali la ara mikail la yadxak waaw mikail mii lu tax du reetaan jibril ne ko dafa yaakaar ne bu reetaane yàlla dugal ko safara dafa yaakaar ne bu reetaane yàlla dugal ko safara allahu akbar hatta malaika al muqarrabun ñoom réyuñu pour nekk jaami yàlla kon bu fekkee ñii ñoo am daraja ji ñu am ñoo am martaba ñoo am maqaama ñoo am wàccuwaay ah waaye réyuñu waaw mbokk yi kon waman yastankif an ibadati ana kan mooy réy pour jaamu yàlla kan la ana kan doo dégg mukk ci Sénégal ñu ne kilifa diine bi jaamu yàlla la doo ko dégg mukk waaw dañ koy jël aj ko foo xam ne kenn du ne ab jaam la sama portable la mooy def affaire bi dañ leen dégg fi benn xalif général bu ñu ne kii jaamu yàlla la mukk yeneen lañ leen di takkal ay ndomba tànk yoo xam ne nit ñi duñ ko ñemee sax wax loolu du diine diine amul ndomba tànk bu gën a rëy nit nekk jaam moo tax yàlla bi mu waxee ñii seen daraja ji ñu am lan la teg mu ne wa man yastankif an ibadatihi ana jaami yàlla yi kan moo ci rëy lànk nekk jaamu yàlla kan la wa yastakbir muy ngand ngandu waaye wax leen ma kan la waay kon loo rëy loo takk noo mën a toll yëgal ne amoo valeur lu dul nga nekk jaamu yàlla amoo valeur lu dul ngay rëppeel sa jëbi ak sa bakkan ak sa ñaari ténq yi ak sa ñaari oom yi ak sa cati baaraam yi ah nga rëppeelu juutu ci sa kanamu boroom keroog rek ngay am maxaama am daraja gis ngeen sëgg di julli ni nga sujjootee nii soo ko defaloon nit torox nga ku ko defal nit torox mais boo ko defalee yàlla tedd yëkkatiku am daraja ñëpp naw la waaye boo ko defalee nit ne nit taxaw nga sujjootu noonu juutu kooku sax du la respecté ndax day xam ne ku toroxal ngi ku ñàkk faydaa ngi nii ku ñàkk maxaamaa ngi nii ku ñàkk personnalité ngi nii waaye mbokk yi loolu ku ko defal yàlla lan la la yàlla yonti bi wax soo sujjootee jege nga yàlla was jut même boo bëggee jege yàlla sax ñu ne la sujootal pour nga jege was jut waqtarib ku bëgg a jege yàlla sujootal allahu akbar mu ngoog kon amul kenn ci jaami yàlla yi kuy rëy wa man yastankif ana kuy ngand ngandulu ana kuy lànk an ibadatihi ci jaamu yàlla nekk jaamam wa yastakbir muy rëy rëylu kan la képp ku def loolu ku lankal yàlla rëy ne doo nekk jaamam nga lankal ko xam nga yàlla fan lay mujjee ak yow fa sa yaxsuruhum ilayhi jamian ñoom ñooñu ñëpp yàlla nee na dinaa leen dajale bis ñoom ñëpp sama kanam kenn du tardé ñooñu ngeen yaakaar ne duñu ay jaam ñooñu ngeen yëkkati ba rombal leen pa place jaam ba rombal leen daraja joo xam ne ñoom amuñu ko yàlla nee na ñooñu ñëpp fa sa yaxsuruhum gis nga damir bi sax gaayib la ko yàlla def yàlla nee na ñooñu ñëpp man yàlla dinaa leen dajale fan mu ne ilayhi ci man jamian kenn du manqué ñoom ñëpp dinaa leen dajale ci sama kanam ba ngeen xam ne ñii duñu dara ay jaam dong lañ woon mbokk yi xam ngeen daraja ji gën a rëy ju nit am mooy in kullu man fi samawati wal ard illa illa aati rahmani abdan ku mu mën a doon xoola yàlla lu mu wax ku mu mën a doon la wax in kullu man fi samawaati kon ñëpp dugg nañ malaaka yi ismu mawsul la man in kullu man fi samawaati wal ard yàlla nee na ku mu mën a doon ci kaw asamaan ku mu mën a doon ci kaw suuf ëllëg yowmal xiyaam booy taxaw ci kanam yàlla jaam ngay nekk amoo martaba amoo yo- kenn du ñëw ñu ne yonent la woon mu ngi nii yonent la woon déedéet cheikh la woon non non non non non non imaam la tur yooyu fii la yem ci suuf booy taxaw ci kanamu yàlla ëllëg jaam ngay nekk abd kon nan lay nekk ay jaam balaa ñuy taxawal ci kanamu ja ginnaaw jàkk ji imaam naan ñu ay jaam lañu woon fekk duñu woon ay jaam nañ xam ne jaamu yàlla du gàcc jaamu yàlla ndam la de billahi wallahi ku yàlla ne kii sama jaam la kooku texe na adduna ak alaxira ku yàlla tagg ne kii sama jaam la kooku texe na ku jaamu ba yàlla nangul la jaam ndeysaan dafa am benn buur bu tuddoon sidiki sidiki suley njaay sénégalais la li ma leen di wax ni sénégal fii la amee buur la woon yéen ñi jàng histoire ah xam nga lu mu def yàlla daa rey jaamam dafa buur la woon mu am jaam mu xëy rek jaam bi dee mu ne ku ko rey ah gars yi nee na ko ñun de dégg na ñu ne yàllaa ko rey mu ne ya yàlla di rey sama jaam gars yi ne ko waaw mu ne xoolal leen ma ci dëkk bi fu jaamu yàlla nekk ngeen indi ko ma rey ko damay fayu garde yi takk ay fas dugg dëkk yi sëriñ bu ñu gis muy jàngal alxuraan yor daara ñu ñëw ne ko buur bee ñu yónni mu ne waaw lu mu wax ñu ne ko jaamu yàlla lay seet pour rey ko ñu ne lu xew dafa am jaamam bu yàlla rey léegi moom tam day xool jaamu yàlla pour fayu sëñ daara boobu ne man duma jaamu yàlla daay romb ñoo fekk imaam bu toog di jàngal tafsir imaam mu ne waaw lu xew ko buur bi day jaamu yàlla lay seet pour rey ko mu ne jaar leen ci yàlla ji ci kanam man duma jaamu yàlla la ilaha illallah gaa yi di dawal fas yi di dawal fas yi di dawal fas yi ba ngoon jot ñu egg ci benn benn jàkk fekk imaam bi toog taalibe yi wër ko asalaamualeykum mu ne waaleykum salaam ñu ne ko yow jaamu yàlla nga mu ne ah xaw ma ndax yàlla nangul na ma ko de moom laa bëgg a nekk garde yi na ko wax nag dañ lay wax kaay ñu wax la nag xam nga si buur bi ne waaw ñu ne jaamam dafa dee léegi moo ñu yónni nañu wër fan la ñuy amee jaamu yàlla ñu indi ko mu fayu léegi nag yow comme ñun dëkk bi yëpp boobu ba léegi ñu ngi seet kenn nanguwul yow tamit bu fi nekk di wax ne yow moom nga nañ dem rek ñu ne ko amuñu mu ne leen déedéet man kay sama problème mooy ndax yàlla nangul na ma ko waaye moom laa moom laa bëgg a nekk man kay du ngeen ma fi bàyyi buur bi lu muy wër ñu ne ko jaamu yàlla mu ne maa ngi nii gars yi takk ko teg ci kaw fas bi ñu dem buur bi xool ko rek reetaan daan ne ko yow dëkk bi yëpp lànk ñoom ñëpp ñu ne duñu jaamu yàlla yow nga ni jaamu yàlla nga di dëgër fit ah mu ne buur bi man kay sama problème mooy ndax yàlla nangul na ma ko ndax lii may def nii nekk jaam bi ndax yàlla nangul na ma ko waaye bu ko nangoo maay man maay premier jaamu yàlla ci kaw suuf fi tey allahu akbar buur bi xool ko ba caag ne ko daal di woo garde yi ñu ne garde yi taxaw mu ne kii yóbbu leen ko lum lépp jox leen ko téeméer jox leen ko téeméeri jaam téeméeri tool téeméeri kër lu nekk jox leen ko téeméer waaw kii dong yow dong laa fi may nag na nga julli ndax yow dong yaay jaamu yàlla ñi des ñëpp duñ dara yow dong la fi sa jàkka taxaw dem leen lakk leen leen jàkk yëpp jàkk kii dong la taxaw waaw gis ngeen wallahi képp ku nangu nekk jaamu yàlla da nga dem ci kaw waaye nangu ko nag te bu ko nangu ci wax mais jëf ko jaamu yàlla day jëf moo tax yàlla mu ne képp ku lànk nekk sama jaam fii ci àdduna nga koy bañ waaye ëllëg yowmal xiyaam dinaa la dajale ñoom ñi ko lànk yëpp dinaa leen dajale fii ci sama kanam fa sa yaxsuruhum ilayhi jamian xool yàlla waxul kenn laay bàyyi waaye ñoom ñëpp ñoom ñëpp laay indi kon mbokk jullit yi ab jullit wallahi kaw suuf du yaatu ci moom asamaan si du ko tiim lu dul mu nangu nekk jaamu yàlla foofu dong ngay amee martaba jaamu yàlla nag lu la koy may xam ngeen jaam gaa yi nee nañ jaam luy njëriñam kañ lay am martaba mooy mu topp sangam gaa yi nee nañ xaj baaxul waaye xaj am na jikko bu baax jikko boo xam ne nit war na ko cee roy jikko ba mooy lan xaj du topp lu dul boroomam gis nga buñ génnoon ni dem marché nit ñi li ñuy bari bari bari bari bari bari bari xaj bi lu mu daw daw daw daw daw fu muy ñëwaat ci tànki boroomam rek ki mu àndal rek lay lay lay topp nit warul topp kenn ku dul boroomam du ndey du baay du kilifa nit lu mu am rëy rëy maqaama yàlla moo la ëpp daraja ci moom waaw moo tax yonent bi ne laa taata li maxluqin fii ma asiyatil xaaliq kenn du topp mbindeef sax ci mooy yàlla da ngay dégg fii Sénégal li fi am man maay jëkkër ji su ma neexee ma ne sama jabar gi bul muuru et puis na ngay greffage et puis na nga xeesal ba xonq et puis na nga dangal su ma la xoolee ma kontaan ah nga gis xale bu jigéen bi commencé tey dafa am sama benn xarit dafa gis benn jigéen bu mag borom jëkkër de mi ngi sol lu bon mu ne ko waaye foo jëm nii ak lii nga sol sa yaram baa ngi ci biti mu ne ko ci sama yaay mu ne ko sa yaay ngay dem di dem li mu ne ko sama yaay nii la ko bëggee bi sa haasal yaay haasihil yaay bi sa haasihil yaay yaay joojoo bon yaay joo xam ne li nga bëgg mooy sa doom ne dum gis nga moo tax diine bi du sàmba du demba du sëriñ du papa du yaay du kenn yàlla rek la képp ku la wax defal lu araam boo koy def di dem safara yaa ngi moom kenn warta topp mbindeef du jëkkër laa wax du doom du baay du kilifa nga koy topp ci mooy yàlla loolu dafa aram koo topp yàlla moo la gën a yay ci moom koo topp yàlla moo la gën a yay kon ab jullit mbokk yi warta rëy ci jaamu yàlla képp ku rëy ne doo nekk jaamu yàlla yàlla nee na ëllëg dinaa la indi ci sama kanam nga taxaw borom bi subhanahu wa taala nee na fa amal lazina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm wa amilu saalihaati ñu taxaw ci farateeg naafila yu baax rëyuñu nekk ay jaamu yàlla fa yuwaffihim ujurahum yàlla neen dinaa leen matalal seen fay dinaa leen ko matalal dara du ci manqué dinaa leen fay waaye dina mat allahu akbar wa yaziduhum min fadlihi dinaa leen dolli sax ci samay xéewal allahu akbar dinaa leen dolli allahu akbar ci sama xéewal man yàlla moo tax waa aljanna bu ñu duggee àjjana ba pare ñu dégg yàlla di wax ak ñoom ñoom waa aljanna yéen waa aljanna ndax kontaan ngeen ñu ne allahu akbar ñun koy fii lañ mën a yem ndax fekk ngeen lépp lu ma leen waxoon defal naa leen ko ñu ne waaw waaw ndax am na lu manqué ñu ne dara kontaan nañ ñu ne ñu ne fii lañ mën a yem yàlla mu ne des na de ñu ko des fii kay mënoo fee indi loo xam ne ñun danañ yokk di mënu mënul yàlla mu ne am na lu des kay ñu ne lan yàlla mu ne ma génn ngeen gis ma allahu akbar ma jàkkaarloog yéen foofu la coow li nekk daan ne innakum sa taraw na rabbakum yéen ñi ngi ni toog di ngeen gis seen borom ñu ne waaw mu ne comme ni ngeen di gisee weer wi guddi mu leer naññ ndax weer wi guddi ku koy xool da ngay def nii ah nooy def doo def dara nii ngay def xulli sama yëpp nga xool ba mu doyal yàlla yonent bi ne di ngeen gisee noonu seen borom wujuhun yawma izin naadira ila rabbiha naazira kanam yu leer nañ ëllëg dañuy jàkkaarloog seen borom am na ñoo xam ne du ñu mun a nangu loolu duñ ko mun a dékku dañ leen di yóbbu ci benn dex sang leen dex googu muy tudd dexu dund waaw da ngay gis fi ku gis benn waykat rek dee man gis naa fi koo xam dafa gis benn waykat rek xëm benn waykat rek la gis xëm xëm xëm xëm këlëj xëm am na ñoo xam ne ay artistes rek lañ gis xëm am ñoo xam dañoo nuyu seen sëriñ rek xëm waaw kon ku gis yàlla noo war a mel fekkee ñi ay nit rek lañ gis xam yow nga war a gis sa borom allahu akbar nga war a gis sa borom jalla jalaaluhu am na fa ñoo xam ne keroog buñ gisee seen borom ci dexu kawsara bu ñu naanee bay mar ba bu ñu maree bay naan am ñoo xam ne Seydina Ali moo leen di tànqal ay kaas ñuy naan am ñoo xam ne Ousmane moo leen di jox ñuy naan am na ñoo xam ne Omar am na ñoo xam ne Aboubacar am na fa ñoo xam ne yonent bi am na fa ñoo xam ne yàlla moo leen di jox ñuy naan xam ngeen yàlla nu mu leen di joxee dañu jékki-jékki rek gis kaas yi branché wu ci seen côté sikkim ñuy naan ñu ne yàlla ñii nag ku leen naanal mu ne wasaqaahum rabbuhum saraban tahura ñi yàlla moo leen jox ñu naan wasaqaahum rabbuhum saraban tahura allahu akbar ñi yàlla moo leen jox du kenn yàlla moo leen branché ay kopp ñuy naan ñoom mbokk yi loolu ndax jar na góorgóorlu wala jarul góorgóorlu tey da ngay gis rek benn waay sonn ci parti bi rek ñu ne dafa war a gis Macky Sall parce que dafa sonn ci parti bi ah wala ndeysaan waaw léegi nag ki sonn ci diine ji ba ëllëg war a dem aljanna gis yàlla jar na ko wala jaru ko ak dugg àjjana neex na de waaye la moo gën a neex ci aljanna gis yàlla gis sa borom am na fa ñoo xam ne duñ gis yàlla kalla innahum an rabbihim yawma izin la mahjubun allahu akbar yàlla neen am na fa ñoo xam ne dañ leen di yiir def ay barrière seen borom duñ ko gis mukk yàlla buñ ci yàlla boole yal nañ yàlla boole ñi nga xam ne ëllëg dañuy jàkkaarloo ak seen borom yal nañ ko yàlla defal yàlla mu ne ndax kontaan ngeen gaay na ko waaw waaw allahu akbar allahu akbar kontaan nañ de yal nañ yàlla boole ci ñooñu yàlla nee na fa amal lazina amanu bu fekkente na ñi gëm yemuñ ci de gëm kese gëm goo gis dafa waram lu mu àndal mooy al amal chaque jour boo jàngee alquran bu yàlla waxee iman lu mu ciy teg al amal al amal al iman wal amal illa lazina amanu wa amilu salihat ngëm day ànd ak jëf Sénégal da ngay gis ngëm gu amul jëf ak gëm nañ waay gënu leen ñoo gëm ñëpp a gëm waaw mais gëm nga te doo jëf ngëm kay dafa am lu koy wane arab yi ba ñu ñëwee ci yonent bi qaalatil arabu amanna dañoo ñëw ne ñun gëm nañ lu yàlla wax qul lam tu'minu du dëgg gëmu leen wax leen dugg nañ ci diina ji waaye gëmu leen su ngëm gi dëgg woon ngeen jaamu yàlla xoola kii ne gëm naa yàlla te du yow fajar mais gëm naa yàlla de gënoo maa gëm nag mais nag c'est que mënuma yow fajar quoi mënuma yow yow koy gëmoo gëm naa yàlla mais du ma julli ah ndax julli moom taxut a dugg àjjana loolu la gars yi di wax julli taxut a dugg àjjana yendoon na ak benn waay ci benn mbaar ñu yendoondu man ak moom julli jot ñu ñëpp jóg jàpp mu jóg jàpp julli jot ñëpp ran mu toog suñu ginnaaw ñu julli pare julliwul ma ni ma ni ki ñu invité woon waaw kii nag mu ne ma moom huwa la yusalli limaza ma ne ko lu tax mu wax ma benn tur mu ne moom lool la benn tur la ma wax jox ma benn tur mu ne moom lool la ñoom dañuy jàpp rek mais duñ julli ndeysaan loolu mooy nax sa bopp ku santaane jàpp yàlla ku santaane julli yàlla yow nga ni damay jàpp mais du ma julli ku looy dee jàpp ba pare mu ngi ak alxuraan nag di liir ñun sax duuti li ñuy waxtaan moom fekk ko ci moom mu ngi liir rek waaw mais alxuraan ci alxuraan foofu la yàlla wax ne wa aqimi sala foofu la yàlla wax ne ma salakakum fi saqar lan lañ tontu waa aljanna waa aljanna buñ duggee aljanna waa safara dugg safara waa aljanna dañuy xool ci seeni fenêtre gis waa safara gis leen ñiy lakk waa ajjan dañ naan waa safara waaye yéen waa safara maa salakakum fi saqar yéen lu ngeen doon xoola ba dugg safara xam nga lu ñuy tontu qaalu lam naku min al musallin ñun dañoo bañoon julli ndax boobu rek la ah dañoo bañoon julli luñ ci teg walam naku daawuñu jox miskin ñi lekk luñ ci teg wa kunna naxuudu ma alxaidin ñun dañ doon xumbal rek di fuural di pëjum di rab baat bi loolu lay tekki ah ku mu neex boo jógee nga tafsir ji ko billahi wallahi loolu lay tekki wa kunna naxuudu ma alxaidin ñun dañ doon tànn béer di rab di loolu lañ doon def wa kunna naxuudu ma alxaidin ñu ne ah xatta ataana al yaqin ba dee jëw nag fekk ñu ci nag allahu akbar xam nga lu leen yàlla wax fama tanfaauhum safaatu tey képp kuy ñaan njekk lu waay di baax baax mën a ramm bu taxawee fii tey man yàlla duma ko faale kenn mun leen tere dugg safara fama tanfaauhum safaatu shafiin moo tax war nañ jàng alxuraan Sénégal gi ñàkk wax nit ñi alxuraan moo tax nit ñi alku waaye ku xamoon ëllëg lu ñuy xaar wallahi dinañ jaamu yàlla waaye waxuñu nit ñi dëgg xoolal fii ñu bëri ramm moo tax duñ dugg duñ jaamu yàlla ramm ñun diw moo ñuy ramm yàlla ne fama tanfa'uhum shafaatu shafiin lu nit di mën a ramm su taxawee ci sama kanam eroog yàlla nee na du ma ko faale ndax ñii dañoo bàyyi woon julli yamu ci loolu de fama lahum ani tazkirati muridin ñii buñ leen doon waar dañuy daw foo jëm day dem tafsir i supp ak i waaye yéen man seen oustaz boobu dama ko ragal ku safara rek lay wax garaawul dama rek fasaale ma jaajëf même rajo yi sax bu ñu ubbee rajo buy wax yàlla nee na dañuy daw waaw fii booy man ñemewuma affaire conférence man ñemewuma ko quoi man ñemewuma affaire diine ñemewuma ko yooyu lañ lay wax affaire diine ñun ñemewuñ ko affaire diine yi daal non man sama yaram sax su ma ko déggee sama yaram day daw du ma nelaw booy booy bul wax tey tey gis nga démb nelawuma ci guddi ma fàttali leen suñu waa kër keroog dañoo def lan ak amul janaayis ma yóbbu kaset bi télé bi ñu teg ko rek guddi jot am na ku ne du tëdd moom kese quoi ba ci biir nit ñi la fanaani du ma fanaan man kese mukk non moom dafa seetaan nu ñuy sangee néew te du néew sax nit kuy dund la mu seetaan ko rek mu ne moom du tëdd kooku kon bu fanaanoo ku dee nu ñuy def sénégalais yi dañoo ragal dee ba pare ne duñ jaamu yàlla dem naa benn dëkk mu tudd Sinthiou Garba ma tegal leen filmu Assane en pulaar jàkka ji daawuñ julli ñaari sàppe la doon benn sàppe ñaar ñaari nit ma tegal leen benn film guddi filmu Assane billahi fajar googu bi ñu yeewoo la ilaha jàkka ji daa fees comme vendredi dañu sëlma rek nit ñi ku nekk na ma man nelawuma biig nii laa toogee di xoole bët set ñii na ma ci taabal yi laa fanaan ñii na ma pëleliri ku nekk di wax ma ne waaw la moo tax nelawu leen sëñ dañoo tiit démb ci guddi ma ne waaw yéen lii film la ngeen tiit kon dëgg-dëgg réellement bu ñu demee foofu nu muy mel nañ jaamu yàlla coow li daal mooy mbokk yi nañ jaamu yàlla dañ xam ne lépp lu nuy dégg yàlla dañ ko wax ci alxuraan du du du lépp de du lépp du lëppoon wallaahi dëgg la wallaahi dëgg la te ñi ko gëmoon lii moo taxoon ñu baax yonent bi ci lii la nekkoon saxaaba yi ci lii lañ nekkoon moo tax ñu bàyyi nelaw guddi di julli di jaamu yàlla koo ci gisoon jëbi dafa ñuul këkk fii am ay rëdd fii dañoo jooy ba fii fii rëdd koo ci gis ndeysaan da nga yaakaar ne kii day dee suba ndax ni ñu dëddoo woon àdduna pour jaamu yàlla waaw ñun defuñ dara jàpp confiance sa waay di bonde di wane ñun la dan ragal yàlla te xam ne yàlla li mu wax mooy dëgg billaahi ku jaamu yàlla perte nga ku rep ba dégg coow lii dégg caaxaan yi ba nga dugg ci ba nga bàyyi sa borom ëllëg yowmal xiyaam di nga xam ne yàlla du moroom borom la loolu na leer ci ñun ñëpp ñu fasaale ko yóbbaale ko bañ cee caaxaan loolu rek mooy tax du ñu waru waaye bu fekkee caaxaan yi la ba ñu dégg ko boo ñu topp suñu borom rek am nañ problème mbokk julit yi borom bi nee na fa amma allazina amanu bu fekkee ñi gëm la wa amilu saalihaati def lu baax fa yuwaffihim ujurahum yàlla nee na dinaa leen matalal seen fay waaye wa yaziduhum min fadlihi naa leen yokkal ci samay xéewal wa amma allazina stankafu bu fekkee ñi ngand ngand lu rëy rëylu lànk bañ a jaamu yàlla wastakbaru ñu rëy wane yàlla nee na mu ne ah taluma ko yàlla nee na ñii bu ma leen jàppee fa yuazibuhum dinaa leen mbugal azaban mbugal moo xam ne aliman kenn mënu koo natt ci métti waaye foo ko natt wees na ko ñi li jar naa bàyyi xel de fa amma allazina stankafu bu fekkee ñi rëy lankal yàlla dëgër bopp ndax seeni maqaama seeni daraja seen alal seen nangam ak nangam moo tax ñu lankal yàlla wastakbaru ñu rëy lànk yàlla nee na su ma leen jàppee fa yuazibuhum dinaa leen mbugal azaban aliman mbugal mu tar gis ngeen li ma waxoon fa amal lazina amanu ñi gëm yàlla dama leen di teral fay leen yokkal leen yàlla nee na ñi ma lànkal dama leen di mbugal te mbugal mu métti laa leen di mbugal yamu ci de mu ne wala yajiduuna lahum min dunillahi waliyan wala nasira su leen yàlla di mbugal wala yajiduuna dunu am dun fa fekk lahum ñeel leen min dunillahi keneen ku dul yàlla waliyan kuy féete seen mbir wala nasiran duñ am ku leen dimbali li leer na kon ku jaamul yàlla ëllëg bu la yàlla di mbugal kan moo lay dimbali yéen yaakaar ngeen ne am nañ fi kenn koo xam ne ëllëg bu nu yàlla rangalee dinu duma am ku ñëw ne bon mon Dieu il faut laisser ah yooyu amul ba yooyu armée la am de yooyu fii la am waaye allaaxira yàlla li mu wax leer na fama tanfa'uhum jàngeen ci suratul suratul naba yàlla mu ne ci mbirum yowmal xiyaam laa yatakallamuun illa man azina lahu rrahman te kooku suy wax wa qaala sawaaban yàlla nee na yowmal xiyaam kenn du wax te kuy wax foofu yàlla moo lay wax diw nga ne ah mu ne la waxal te sooy wax mu ne danga naan cocc wax ju leer ngay wax wa qaala sawaaban loolu alxuraan la waaw naka la yàlla di waxee ne ñi rëy bañ maa jaamu fa amma lazina stankafu ñi ngand ngandlu bóof génne dënn te duñ jaamu yàlla wastakbaru rëy yàlla nee na ñi bu ma leen jàppee fa yuazibuhum dinaa leen mbugal azaban aliman mbugal mu tar wala yajiduuna lahum duñ fa fekk duñ am min dunillahi walis yàlla keneen waliyan allahu akbar gis ngeen wali baatu wali mooy baat yi ñuy naxee te kenn du ko firi wali yu ci la bokk cheikh ci la bokk muqaddam ci la bokk hadaya ci la bokk shérif ci la bokk baat yi dañu koy naxee Sénégal kenn du ko firi soo ko déggee dafa ne mais bu ñu ne kii waliyu la looy foog kër yàlla la fa naan xam na lu nekk sa xol lu mu ñaan yàlla nangu loolu ngay foog lan mooy wali xoolal ñii yàlla di mbugal dana ëllëg yowmal xiyaam duñ fa fekk wali yi wali yi mooy rek ku ku ñu aliyeel ku leen faral ku leen di tereel yàlla mbugal leen seytaane sax waliyu la yàlla nee na man waliyu laa seytaane waliyu la kon waliyu am na lu muy tekki allahu waliyu lazina amanu yàlla moo ne man waliyu laa wallazina kafaru awliyaahum waaw kon seytaane sax waliyu la kon waliyu am na lu muy tekki du li du liñ ko foog fii gis nga ñii yàlla di mbugal biir safara dafa ne du ñu am foofu wali waaye du ñu am nasiir du ñu am ku leen dimbali ku xalaat ne yowmal xiyaam di nga fa am ku la dimbali yàlla dàq na ko loolu tax sëriñ bi nee na bu ngeen di jàng alxuraan su aay jeexee na ngeen xalaat aayooyu fu mu feeyee sunu aay tey fan la feeyee borom bi nee na ku jaamul yàlla ëllëg su ma lay mbugal doo fa am koo aliyeel doo fa am ku la dimbali kon bu fekkee loolu rek nga yaakaar doo fa am ku la dimbali doo fa am ku la faral ah sëñ bi foo xam ne boo fa demee bu ñu la fay ndugal bu ñu la fay duma doo am ku la àtte doo am ku la jàppale doo am ku la dimbali sëñ bi ndax foofu jar naa dem fu jara dem daal mooy xoo xam ne bu la waaji pesee benn pes balaa muy pesaat ñaar nga dékku ne waaye déet waaye sëñ bi waay tin ñu ci waay foofoo wóor waaye foo xam ne sëñ bi mu lay wulli kenn du wax foofu day boo fay dem war ngaa góorgóorlu ba yóbbu fa lu leer yowmal xiyaam nag mooy foofu yàlla nee na yowmal xiyaam ëllëg ñépp ñi réyoon bañ maa jaamu dinaa leen mbugal mbugal goo xam ne du nu fekk foofu ku leen di faral wala ku leen di jàppale mbokk yi loolu mooy darsi tey noo ngi jéggale juum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu fekkee am na ay question insha allah